bo len baye xel am na xale bu góor bu len romb legi bama nan ko ndax dem nga hopital bop bi ni daf ka jam paaka digge ginnaawam gi yëpp daf ka jam paaka dof nday gay gay autorité rew mi yene ngi seetaan de police ak gendarmerie encore yene ngi seetaan de seetaan ngeen dof nday ha ah, mu ne ci bi di wax lu ko neex laalu len ko legi jam na fi doomi jambo andi gañ ko batay la même chose réew mi moom tamit tamit bu fekkee ko ànd ak magi jaam nga nañu ko leeral ñun ñu xam ko ñu xam fu ñu féete parce que dof ndey leer na ma ni ndayam gënu fii ndayu kenn bàyyam passe encore ah moom it melu fu mu kenn melu ba tax mu war a ne ci dëkk bi yoru ngànnaayam di saagaaka gaañi kenn du ko laal kenn du ko def daara te fi waxuma la gaañ gii de waaye wallahi ko àndoon ak soogu tey jii lu ndaw boo ko parlee dan lay jeex ba gis la jeex ba gis la jël la yóbbu la dof ndey ngi déroulé di dem di ko saf c'est parce que xaritu doomu ki ne ci bopp bi la ah, waaye li ci des bëreetul nañ muñ rek ay weer la de wallahi ay weer la de neexut dégg ay weer la